Fatou tey on a bien bossé mais on a presque tout. Ah, man je pense que lépp mat là. xanaa lenn mo def muy local bi. mais à propos de local bi man de kat jaxle location bi à Dakar ça coûte excessivement cher hein? <laughs> je je n'imagine même pas xamoo le location bi cher dafa metti de dafa cher trop ça. en tout cas. Hmm, c'est cher. mais man xam nga lan la doon xalaat est-ce que duñu jël benn fonds de commerce jënd ko benn yoon parce que normalement soo xoolee si annonce yi comme ay leader petite annonce yooyu war nañ fa mëna gis salon buy jaayaat ñu jënd ko qu'est-ce que t'en penses. waaw salon c'est une bonne idée mën nañ dem xool ci annonce yi peut-être sax du jàkk du ñàkk ñuy jaay seen salon de mën nañ essayer xool foofu rek. ndax loolu laa doon xalaat mais sinon à propos sa quoi coiffeuse yooyu nga doon wax. waaw sama benn copine moo leen xam. Mhm. la. Mhm. dafa def salon ba am diplôme am xam naa moom kooku amee ak beneen professionnel ñu doon di si yeneen deux filles ñu il faut ñu defaral leen ay test. waaw parce que xam moom il faut qu'on ait le top. <laughs> surtout ak sa nguuga yeeg sa laxas yi. yóbbu nga déjà. <laughs> foog defal leen test moom. il am le top moom. Oh, bon Astel maa ngi ñu posé le compagnie nag. déjà. waaw parce que am benn collègue bu ma kolos ma may xaar kër ga. Je dafa pour médiation mais bon am dara dañ rek ko faire saliva ne mais euh, e local. tu as oublié ça. non je l'ai pas oublié mais je ko reporter demain matin mais bon puisque tu y tiens mais euh, avant il faut que je remercie la parce que instant yi y rêve pour man je ne may wax xam sa sentiment bi au fond de moi man xanaa di remercier parce que vraiment une une fille xam ne kat tu es gentille man daal lu lay wax toi aussi gentille parce que vraiment tu m'as ouvert les yeux ci affaire yu mais xam naa man ak ci kanam. dinañ gën a gisagoo dara. li ci kanam nga wóolu bët te yow li ma lay dencal. Ah. mu ngi ci kanam. ñaan yàlla rek cat bët ñu dugg. waaw yàlla bu ñu cat dugg. <laughs> bon maa ngi ok bon su tu veux je te dépose kat

lu bëgg ci kaw suuf ma taxaw ci dimbali la si ci sama doole mais xam naa ne ñun ñaar dootuñu mën a ànd man xalaatuma woon ne yëpp yëpp xaar ma ko woon damaa jaxasoo torop torop

soxla rek dinaa taxaw jàppale rek.

waaw li ma doon doyee mooy dama ñëw pour ñu waxtaan ndax yow ku baax nga te xam naa neex nga waxal kii nag sama xarit la mën naa ko ñaan pour mu ñëw ñu ànd ak man l'autre jour bi nga ñëwee kër Boubacar gis fa baax a yoxoo ba mu doon téye et ku jigéen ki nga xam ne moom nga fekk te mu war doon serviette bi kooku sama gel la man ak moom ñooy génn kooku nag kenn waru ko blâmer parce maa ko indi kii maa ko présenté Boubacar pour may ko ko mais Boubacar liñ naan seko duggul kaaf loolu moo ko dal keroog lu nekk def na ko mais Boubacar da ko refusé pour wane ne sa jëkkër ku la bëgg la bëgg bi mun a bëgg moo tax yemewul kenn lu nekk tànte na ko pour am Boubacar Boubacar wan na ko du moom yow la loolu nag dafa jafe. ndax moom moo ma ko présenté woon pour ma jéem a nekk ak moom bi ma ko gisee it il m'a vraiment jigéen nga dama lay wax ko ñu nekk jéem naa bépp jéem pour jéem ko am quoi. Hmm. mais nag franchement c'est déwul xamal ma ni dafa am jabaram da ko bëgg te da ko respecté. Hmm. tey jii bu doon euh, course la mu ne façon njëkkante la ndax sa jëkkër góor du ko gën am lu ma deful jour pour jéem ko am am lu ma deful pour jéem ko iri. mais nanguwut yëgal ma ni carrément moom jabaram la am te dukoy koy fidèle dem na ba nga xamantene dama introduire ci kaw laam def samay fem et tout uniquement pour jéem ko am te gor lay bu ko neexoon mu doxale comme yenen gor ñi di raasaatu mais defu ko moo tax tey bi ma kolos waxee dañuy ñew ko wax ak yow ma ko dama ci and ak yow mhm. dem na ba nga xamante sax jéem na ko supplier comme dama andalon ak sama nawle bu jigen ci jigéen ju ne naw jigéen ju ne naw la la mhm. bëgguma woon sax ñu wàcc ñoo xam nu mu fa demee woon mhm. ma jéem ko supplier pour jéem a tëdd ci kaw lalam j'espère que ci comprends mhm. jigéen ju ne jigéen nga daal jigéen bu ne jigéen la ak jigéen la def sa genre yi ñoo tax benn góor respecté tul jigéen benn jigéen amatul dignité ci kanam góor muy mag di ndaw yow tu te permets toog fii di ma expliquer ay histoire yoo xam ne ça ne m'intéresse pas du tout. man tu n'as pas le droit de xool déglu ma oui ma lu ma wax ak moom na génn non non non man naa ma lu may wax ak yow parce que yow yaa ma koy kolos yow bu dul woon yow xam nga ne du ma ñëw ba ci biir këram mu naan daf may kolos wax ji dafa doy déglu ma man saa jigéen du ma jéem a yab wax ko déglu ma yow na ci defee su ma xamoon ne moom nga ngi pas le droit de me juger bu ma jéem a juger la de franchement bu ma juger est-ce que yaa ngi may dégg na génn sama kër ci biti li ma expliquer ça ne m'intéresse pas, pas besoin de me dire génnal ci biti j'y vais génnal mais Kati lii lii rafetul Kati. non Koros na comme cas nga war a waxtaan ak déglu ko nga déglu ko waxtaan ak moom tout yow kii li mu def lu baax la man dama ko supplier pour mu ñëw sa kër pour expliquer la pour nga xam ne sa jëkkër ku la bëgg la ndax lii bu nekkuloon ne ku baax la du ko def moom li mu def dafa rafet ñëw wax la ne mi ngi lay jéggalu wan la ne sa jëkkër ku baax la jëm na seq ak moom lu nekk sa jëkkër refusé na ko yow kay yaa ko waroon déglu. xam ne yow mii mën nga si jëlee leçon te nga bàyyi li nga nekkee kati yow ku baax nga sa jëkkër ku baax la fàtteel li weesu nga ñëw sa kër sëy sa sëy bi man nag dinaa waxtaan ak Boubacar te yow tamit dinaa fi dellu si xam naa ne dangaa mer waaye li ma bëgg rek mooy nga dellu sa xel bi dem sëy sa sëy bi kati ngir yàlla dégg nga kati waaw maa ngi dem mais defal la tuwaay nga dellu sa xel Ça iya. va? Ah, ça va. On a quelque chose de journée? Ça va. Hmm, ah loolu lu baax la. Oh. ma def sama ngaay. non xiifu nga ma ba ci kanam tuuti moo sonn. Badou woon na la ah. Badou. woon ma. mu ngi doon doxee. daf ma invité rete ci guddi. mais dama. daw ma de. ma taluma la génn ah dama nga décompressé tuuti dama. nijaay damaa demoon. lu tax ndax li Badou bëgg laa mënul. Badou lu mu bëgg. nijaay man je suis toujours mariée dama nekk si bu mu sëy ba tey Boubacar nag gis naa ko lépp expliqué na ma ko histoire bi yëpp lu mu demee wax na ma ko de A à Z waaye nijaay moom ku ma bett nga parce que man dama jàpp ne bu ma nekkoon si biir kër ma nekk fii nga war ma wax dëgg waxoo ma ko ba keneen du jógee fële di ma ko wax te yow nga ne sama mbokk nga bett nga ma torop. dama la bett man maa la bett. waaw. li ma def ni sa intérêt la dégg nga. ma intérêt ma. wa yow man dama la doon protéger ndax man nga fi dese moom nidaay jóge nga fi tukki dégg nga neexul sa nday neexul sa bay sa yaay di ko misère ba dé sa bay gedd la kenn bëggatul man mi sa maagu yaay top ci eh, sa yaay top ci man man nampa jox ma la récupérer indi la su dul loon incident bi amoon la tuba bi tubaab bi xaru dama xam yow ki yow fi dese comme jalbaat ma récupérer ya. la indi sama keuf pour dem la gérer pour nga normal deng nga yépp boo ci def dara dara boo ci def sa intérêt rek la mos yow fii unique nga sa yaay ak sa papa yor nga ñu am comme doom au lieu nga normal li ngay def yépp man xam naa ko Boubacar maa gën a xam ne gisante ngeen xam naa bu baax ne gisante ngeen mais sa intérêt la doon seet doon la protéger dégg nga yow dafa mel ni bëggul lu baax ak fi nga jaar yëpp waroo ngay xam sa bopp yow ya kan léegi nag xam nga lu baax xam nga lu bon jeex na dafa lu la neex man sama dogal wàcc na parce que protégé naa la def naa lu pour nga normal yaa xam nag léegi décision bi ngay jël mag nga duma la forcer jeex